daaru salaam Tuuba daarul minal daaru salaam ñuy dox rek di wéy ci waxtaan ci màggal gi nga xam ne ñu ngi koy defee fii ci Vicenza defee ko fii ci di kente ànd ci Oustaz euh, ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum Oustaz Saliou Ndiaye ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatulah eh, yaa ngi fi ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy defee Vicenza te it kenn dutu la nattable ci wàllu xam-xam kenn dutu la nattable ci wàllu jàng waaye ci wàllu it ak taalube ndax dégg nga ku ko gis xam fi muy liggéey xam li muy liggéey xam gis li muy liggéey xam ne nit ku baax la ci wàllu taalube ci wàllu njàng oustaz ñu ñëw ci màggal gi nga xam ne buñ la laajoon tey maanaam nga wax ñu lan mooy nan lañ koy mën a toje ci wàllu diine nan lañ koy sunaale loo ñuy wax. Euh, jërëjëf sëñ Modou euh, ñoo ngi lay delloo am nuyoo baax di la siyaare baax di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi bis bu tedd bi di béréb diine bi bisul islam waaye di bis boo xam ne bisu Seexul Xadim la waaye buñ ko doon jàngal rek. niñ ko mën a dégge mooy dafa am lu muy jàngale lu muy wane muy bis bi ci ku xam dëgg-dëgg borom bis bi muy maam soxante borom gaawaan di jëmm joo xam ne léppam Serigne Touba la woon diine rek moo ko mas a ñor ak taay rek moo ko mas a ñor loolu nag ku ñëw ci bisam am na loo ci war a jàngale mooy lan mooy ak taalibe ak nu ñu bëggee sëñ Tuba ak nu ñu toppee sëñ Tuba loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu war a jàngale ci bis bi waaye du doon bis boo xam ne day ñëw rek toog ñëw jàng daal di xoolante bernde yi daal di dem kon su boobaa duñ ca mën ci jëmm jooju kon bu ñëwee war ñoo jàng dëgg-dëgg la sama bis bi ak jëmm ji nga xam ne moom moo waral bis bi ak ki ñu ko doon defal kon loolu jàpp naa tomb la boo xam ne mën nañ caa xóotal jàngat ci nga xam ne ci la ñuy xamee dëgg-dëgg njariñul bis bi kon. Oustaz jërëjëf sëñ Sall waaye dañu seetlu borom bis bi dañu seetlu mu amee woon ñaari mbir yu mën a jàngat bi doy dañ ko daan ak joxe. muy ñaar yoo xam ne gën nañ koo ràññee ci moom ndax ku ne xam na ne ah, lim daan liggéey foo ko mosaan fekk am na li muy liggéey waaye li muy liggéey lim ci daan am da ko daan joxe bañ tuddee ko borom dërëm ak ngërëm te muy ñaar yoo xam ne lu ko doomu aadama daan dajalee ndax buñ ko xoolee ci jamono ku suñ borom mos a jox boo bari lee rek boo deful ndànk am na wet goo jëm moom nag ñaar yëpp suñ boole boole mu yor ko te di ci def li neex yàlla kon ci loolu dafay mel ne maanaam nit ku baax ndegete loo xam te nam koy jëfandikoo ñun suñu bopp buñ ko royee mën naa am luñ ca jàng. waaw jërëjëf euh, maanaam jëmm ji muy liggéey ak joxe jooju nga xam ne ñëpp xame nañ ko ràññee ko ko loolu mi tele mooy ku ñu defar la ku xam diine la ndax ku xam diine mooy bu ñu xoolee lislaam bi mu cosaanoo dafa am ñu waroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko doon jàpp ci liggéey bi Cheikhul Khadim ñu mel na rek ñoo ñëw wër ko doon ko jàppale ci liggéeyam bi. nga xam ne suñu borom moo leen tànn waajal leen jëmm ji bokk ci ñooñu ndax boo xoolee lislaam ñi ci raw man ci ci yaar rek lañ ma ne mooy liggéey ak joxe ci loolu ci lañ rawee ma ne ca joxe lu jege loo xam ne ma ne ko xam nga xam ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki ci gën kenn la muy Aboubacar Sadiq waa nañ xool ba xam lan la gënee ñi nga xam ne ñoom la àndaloon buñ ko xoolee nit la woon koo xam ne liggéeykat la woon koo xam ne borom alal la woon waaye bi yonte bi ñëwee ni mu def mooy dafa jël léppam jébbal ko yonte bi ba yonte bi seede wax ne amul jenn alal joo xam ne jariñ na ma ni nga xam ne noonu la ma alale Aboubacar jariñe nga xam ne dafa taxawoon ci yonte bi salaahu salaam lépp loo xam ne yonte bi salaahu salaam soxla na ko ci alal Aboubacar jëloo la joxe ko boole ko di liggéey am alal capital boo xam ne waaye alalam ja denc la njabootam denc ko ngir ëllëg. waaye da koo jël rek ngir taxaw ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir diine ma taxaw nga xam ne yonte bi munuta a boole di woote waaye di liggéey di amalal kon dafa man a taxaw ci benn bànqaas mooy di woote di diine waaye dafa am ñu ko loolu ñoo xam ne dañuy taxaw nag di ko jàppale ci li nga xam ne mooy wàllum finance nga xam ne mu du ñàkk ci alakulaar ci àdduna ndax àdduna ak loolu ñoo ànd moo tax boroom gaawan bi mu ñëwee dafa roy ki nga xam ne mooy Aboubacar ci fànn googu mooy dafa gis ne Sëñ Tuubaa mu jaddit la te munta féetewoo di liggéey ba pare ba nga yeesal diine moom jëmm jii nag futteeku di liggéey boole ko nag lépp loo xam ne Cheikhul Khadim soxla ko mu jël loola féetewoo ko ba wax na ko yorami sa baatin ma yor la sa saaxir kon loolu mi tëdda mooy kon dafa taxawoon ngir li mu am Cheikhul Khadim rek mooy ki xam ne moo ko yayoo ngir mu war koo jox bokkoon na ñëpp alal waaye bu ñu xoolee bi muy génn àdduna bokk na ci gën a ñi gën a néew alal nga xam ne bàyyi fi dara loolu li muy tase mooy kon ndekete ab julit dafa am loo xam ne da koo war a def muy liggéey waaye liggéey ngir la la ngir faggu ëllëg ngir ne defaat ko ci yoonu yàlla infaq fi sabilillah kon borom gaawaan loolu la xamoon moo tax bi mu jëwee yitteem jëpp mooy doole ji nga xam ne mooy as muy muy ndaw gi xam ne suppaan gi nga ko jox mu liggéey ci te jamono yi boo ko xoolee at ndaw la ay ñaar fukki at nangam wala bi muy tàmbali liggéey fukki at ak juróom-ñett la ñu am bi ñu jox Daaru Salaam mu tàmbali futti ko ànd ak ñoom ak donga yi di liggéey waaye lu mu liggéey rek sol xam ne koy jox ba bi mu demee ba nekk dafa nekk wut ay entreprise am di bay waaye lépp ni muy def mooy lu Seexul Xadiim bëgg rek mu taxaw ci loolu jox ko kon loolu li ñuy jàngate mooy kon ñun war nañu jàngat suñu diggante kenn ku nekk ak sëriñam ni nga xam ne moom la maam Thierno taxawee maam maam Cheikh Anta ni mu taxawee ci Seexul Xadiim noonu ñun ñëpp dañoo woon taxawee te gis nga lim ko jural lim ko jural mooy bis bi tey ji ku fi ñëw jar na kenn ku nekk jàng ci moom ni ne lu mu am na ko defal yàlla te mooy mu fi jox ko ab sëriñam kon loolu lay jàngat ci ki xam ne mooy jëmm ji nga xam ne moom lay roy ci liggéey ak joxe ci jëmm ji ci lañ koy jànge kon. jërëjëf saa ñu ko ci euh, sëriñ Aliou asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu yow itam ku wax bis bi wala ku wax ci sëñ bi du la mën a jéggi ndax sa maam sëriñ Lo mooy ki nga xam ne sëriñ tubaabam jógee ci géej ga moom la jëkk a garas yi woor kër ga ba wari fa bu ñuy màggal yow am na loo màggal bu ñuy wax am na loo wax ci màggal gi rek la wax ci ak bés bi ndax ku ne xam na ne màggal buñ ko dee wax wala bu dee am tey ji Cheikh Modou Moustapha am na lu mu liggéey ci yoonu murit am na lu mu def ba nga xam ne maanaam moo taxit maanaam ñu agsi fii tey te loolee mu daan def bokk na ci dajal mbooloo ñëpp mu wuuf leen kenn ku na mu jox la sa cër ba ci loolu it mbooloo yëpp ci lañ àndandoo dajale tey moo tax màggal gi boo gisee maanaam këru sëriñ gu ne gis nga ko fi kon nga xam ne gis nañ ne li fi ne bari na ciw nit waaye nag li ci gën a yéem mooy dañoo ne ci jamono joo xam ne fii dañoo mel ne ku nekk ci di xeex lislaam ndax lu yëngu ci lislaam rek am na fuñ ko sànni am na fuñ ko féetaleel waaye ku ñëw fii gis nga xam ne sëñ Tuubaa lam doon dox ak lam doon liggéey muy jàmm rek ak jaamu yàlla rek feeñ na fii tey bu wér a wér bismillahi rahmaani rahim aoudu billahi min sheytaan rajim aw nu ko yaa maino bi ka na saayin barakati Cheikh Xadim sëriñ Modou ñoo ngi leen di nuyoo nuyoo di leen ziar bu baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, di am mbégte nag ci jataay bi ak euh, question bi nga ñu posé muy lu am solo lu àddina bépp war a taxaw jàngat ci dellu ci ginnaaw ndax jàmm ji nga xamee ne moo am tey ci jataayu kër sëriñ tubaay yi te bu ñu waxee kër sëriñ Touba yi mooy mbooloom sëriñ Touba mi fu ñuy daje jàmm ji fi yàlla def mooy sëriñ Touba moo ko liggéey moo ko fàggu. xam ne jàmm moo am njariñ àddina moo am njëriñ àllaaxira sëñ Tuubaa fàggul ñu jàmm ba tax ñu mën a dajaloo ak lu jamono xat-xat ak lu jamono tënku-tënku ak lu jamono metti metti boo fekkee mbootaayu sëñ Tuubaa gu dajaloo ci benn béréb dangay jàpp ne àddina mësta am benn lëndëm lëndëm mësta am benn xat-xat mësta benn naqar mësta benn jafe-jafe yaa ngi koy xam ci xol yi xam ko ci kanam yi xam ko ci poos yi xam ko ci kaddu yi xam ko ci jataay yi nga xamante ne da ngay fekk ko béréb béréb bi dafa am ben xususiya bu ci am ndax nak day fa bokk ci luñu wara jangat bu baax moy mbir mu ne sa yu amé da ngay jangat yar na mel lu koy waral bis ba dana ko waral muy ka waral bis ba ak it bañ koy defee itam la tax ñu def ko fa. Euh, fi ñu koy defee nak boo ñu la waxé tay ciosanam demb béréb la wax bañ koy def fagg ko bérébu kay la won discothèque bi gënon ray ci mun bu ma waxul ne mo ray ci italite bokk na ci bi gën a rëy ci Italie waaye gox bi moom moo fi gënoon a rëy bérébu fawukaay la woon daawuñu fi jaamu yàlla bu ñu demee ba tey defatuñ fi lenn lu dul jaamu yàlla te li ci ëpp ci seen jaamu yàlla gi ñu fay def sëñ Tuubaa lañ koy jagleel te sëñ Tuubaa gi lañ koy jagleel mooy kër ak sëñ Tuubaa goo fi dégg muy buntu kër nekk sëñ Tuubaa boo dégg rek ñu ngi ko fiy màggal di ko indi ci rox bi kon mel na ne liggéeyu sëñ tubaab yi law na ba foo xamante ne nii saytaane ko moomoon ma ngi ko fay dàq di ko fa jëlee kon loolu jagle googu tey war nañ ci sant yàlla ak sëriñ Tuubaa baax a baax la ci dess ki ñu defal bis bi muy mam Cheikh Anta di rakki Seexul khadim bokk mom seigne Touba momi darna baxaw bayyi ci xel bu baax ñu xalaat ci fatale ko ci mom am luñu jël ci mom la ñëk jangat ci mom soxna Anta Ndiaye mi nga xanteni moy wajuram wu jigen meññi ko nga xol ak seigne Touba mi nga xay mom la bokkal seigne Mor Anta Sali soxna Anta momu bokku nañ ci liñuy jangat ci mom moy mbax xam-xam yar. ak mbokkoo gi mbokk ak soxna jaara ba indi ko ci kër ba tey sëñ Tuba moom mu mën caa jaar ba ñëw jamono ba liggéey sëñ Tuba mën a agsi fi kon waaye juru kay borom bis bi bokk na ci ñi dox dox boobu liggéey ci liggéey bu rëy boobu kon loolu rek doyoon na sëkk ñu taxaw jàmbat sunu bopp suñu diggante ak taalibe sunu diggante ak mbokkoo suñu diggante ak nu ñu war a nekke waaye loolu lépp bu jàllee wax nga ko léegi laaj ko muy Cheikh Modou Moustapha buñ doxé ba aksi ci ginaaw señ Touba ci ci Zahir ba Cheikh mustapha man na taxaw señ Touba taxaw bo nga xamanteni ni bu tay bu ñepp rañé la ndax yoon wi di tay ñu koy tuddu di tuddu yoonu mourid fu mu ag dimension bu mu am ak qualité bu ci mëna nek ginaaw bu borom jallé ci katunu jall ak yoonte bi nañ sant Cheikh mourid mustapha baaxa baax ndax la ak jom ak fit ak ngor ak xel rafet mu dox ci tiyé ko yoon wi tiyé ko njabot gi téye ko taalibe yi téye ko ndénkaane sëñ Tuubaa yi téye ko boppam ak ak njabootu boppam doxee ko ci xam-xam ak ngor loola tey mu indi lii tey jii. ba mbooloom mi tey fi taxaw fii mbooloom sëñ Tuubaa lañ waxee mënoo xam ku dëkk Daaru Xudoos mënoo xam ku dëkk Daaru Minam mënoo xam ku dëkk Daaru Salaam mënoo ko xam ku dëkk ci kër Cheikh Ibrahima Fall ñëpp njabootu sëñ Tuubaa gépp ñoo fa taxaw tey jaxasoo di liggéey sëñ Tuubaa ci benn bis bi di ko sant maam Cheikh Anta Gaawaan mi nga xamante ne ndey moo nekkoon rakk sëñ Tuubaa liggéey liggéey bu rëy bii kon Cheikh Modou Moustapha yal nañu ko yàlla suñu fayal ñu ko ci taxawaay bu rëy bi rafet bi nga xamante ni moom la ñu fa andil waaye nag ana lu ñuy jànge ci liggéey bii sëñ Modou dafa am lu bari lu ci jamono wax nga ko jamono xat na tënku na saytaane nga liggéey liggéey bu bon a bon a bon te fi ko jaaree tey dafa yomb yomb goo xamante ni nii dafa àgg ci kenn ku ne mën koo jëfandikoo ndax jumtuwaay yi ñoo bari ndax koppar yi yaatu na moyens yi nga xamante itam moom lay faggandikoo muy réseaux sociaux yi yaatu nañ euh, leneen li ci des itam mooy béréb yi ñu ko mën a jëfandikoo te kenn du la fa fekk euh, ba am autonomie mooy parce que dañuy wut ay wasa wasaayil yoo xamante ni muy lu mel ne ay WhatsApp ay Facebook ay Viber ay Skype ay yeneen i yeneen i buntu yoo xam ay ay jumtuwaay la yaay da nga ciy jaar mën a def sa ay tojaange yoo xamante ne nii tey li xew ci àddina muy yàqu yi jamono léegi nit ñi xeexatuñ ci xulatuñ dañuy toog ci seenum néeg du yàq deru doomu aadama du yàq deru ab kër du yàq deru mbooloo du yàq deru kilifa di yàq àddina jëpp tey ci jumtuwaay yooyu la am kon saytaane liggéeyam ñu ngi koy def ci liggéey bu modeste boo xamante ne ni da xëy rek gis àddina dara yëngu ci ñu ne lu xew ñu ne démb la woon ñu ne ci sa kër la woon ñu ne kañ la nu fa xewee fekk na ci sa biir kër la ba mu fay xew yaa ngi ci biir amaana sax bokk nga ci ñi jëkk gën a joxe moyen ba muy amee la koy tax am la ndax yaa ko financé te yéegoo ko yaa ko jëndal moyen ba te yéegoo ko kon war na jàngat delluwaat ci yar bi delluwaat ci xam-xam bi delluwaat ci njàngam sëñ Tuubaa bi waaye delluwaat ci yarub taalibe yi ndax wax nga ko léegi sëriñ bi kat bi mu bàyyee sëriñ Ndaam Abdourahmane ci ci béréb dëkk ko fa ah dellusiwaatul lu dul da ko fa fekk ba mu jógee ci liggéey bu rëy baat ba mu ñëwee ci kër sëriñ Siré la wàcc jàmmoo fa yàlla weeru koor woowee wax fa lam fa wax jëf fa lam fa jëf ba jógee fa ñëw seet si Seex Anta tey bis ba bu tey ji ñu bokk ci li ñu fàttaliku kon yàlla yàlla sëñ Tuubaa fayal ñu leen sama borom doolu ñuy xel eh, ba ba jege kan incha allah oustaz déggoo ko sëriñ Aliou Lo ndeysaan di seetu sëriñ ma ah, sëriñ Siré Lo wax ji wax oustaz eh, buñ gisee sëriñ Tuubaa ne o xaatibu nasara turan ila ardihim loolu liñ ci jël misaal mooy dëkk bii ñu ne tey bokk na ci dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yi gënoon a tàng ci réew mi nga xam ne naanam nit ku ñuul seen ko lañ daan bañ daan daan ak yamale ñaareel ba mooy barab bi nga xam ne ci lañ ne di defaree màggal gi ba na barab boo xam ne ab discothèque la woon bokk ci discothèque boo xam ne moo gënoon a rëy ci bi fii ci toll kon yaakaar naa bu ñu demee ba nit ñi ñu wulli leen discothèque bi ñu def ko jàngkaayu alxuraan nit ñi yendu fi di jàng alxuraan ak sëñ Tuba la tubaa Tuba joxañoon lam bindoon oustaz kon yaakaar naa agsi na waaye am na nuñ ko war a jëfandikoo. jërëjëf oustaz sëñ Modou Gueye ci laaj boobu nga xam ne laaj muy laaj bu solo boo xam ne eh, lu mat a jàngat la ndax eh, Serigne Touba du waxantu ndax su waxee ne nasaraan yi nga xam ne ñoo ko jëloon. bi mu ne lii lil Moustapha nawetu maayu jaddadu sunnatoo xarra wa inni ahmadu ñoom ñu taxaw na ko loolu du fi am mu taxaw na loolu dana am daal di wax ne sax du ma ca yem waaye danaa dem ba ca ñoom ma taxaw waxante ñoom xam na la ma bëggoon danaa ko mooy taxawal diine ba ñëpp teg seen bët loolu tey jii ku dikk fii tey danga xam na loolu am la waaye ña ànd na sëñ Tuubaa tey boo leen waxee loolu ndax loolu am na dañu jàpp na loolu tey mënut a nekk ña jamono moom waaye ku ñëw fii day gis ne sëñ Tuubaa doon mel ne loolu ab tàmbali la woon la waaye fii dëgg-dëgg nag taalibe mi ñooy ki xam ne ñooy dëgg-dëgg def mu jaddit boobu nga xam ne li ñuy wane mooy ni ko waxee mooy barab yi biñ koy sàkk daray diine taxu woon daray lu baax taxul woon li ko tax a jóg mooy bakkan ak seytaane ak àdduna loolu rek moo ko tax a jóg waaye Sëñ Tuubaa waxam mooy wax joo xam ne bu mu xas wax rek wax jooja ala kulli xaal dafay wéy ba tax na la waxoon kon tey jii lañ koy firnde mu ñëw fii nga xam ne fii la cosaanoo mu yebal fi ay taalibeem waaye di ay ndaw ñoo xam ne du jëmi suñ Tuubaa waaye ci ñooñ suñ la ñuy sukkandiku lu mel nekk ñenn ci njabootu maam Cheikh Anta Borom Gaawaan ak njabootam ñoo ñëw taxaw fii ñëw saal yoo xam ne daray diine mosu fa am te du seen jubluwaay te mosuñu koo xalaat du mel noonu njabootu Borom Gaawaan ak ñu mel ne ko ñëw taxaw tàmbalee na kat nodd fa di julli jang fay alxuraan waxtaan di baaxee sëriñ Touba waaye waxtaan fa la mooy diine kon loolu la muy tegtal mooy sëriñ Touba la kenn xamul mu doon mooy la ma ne bi suñ borom sàkkee yonante bi sallallahu alayhi defar ko ba mu yeggal ba lam liggéeyoon mel na ne am na lu ca war a yeesalaat sëriñ borom sàkk ko na ko demal nga yeesal ma loole kon yeesal googee mooy lim fi def jàpp naa ne ab yonante sax lu toll ni nga xam ne moom la sëriñ Touba def mel na ne bu mënut a def lu ëpp loola ndax dafa taxaw taxawaayu yonte sallallahu alayhi wa sallam ni mu doon yeesale mu jël am njàngaleem ak royam xarfan bi xarfan ba taxaw na ci njàngaleem yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moom lay taxaw lu mel nii nga xam ne li ci gën a yee mooy ndaw ñi la jël def ci seeni xool muy bëgg Sëriñ Tuba nga xam ne soxlawuñ kenn lu dul Sëriñ Tuba lañ soxla waaye mag ñi seen yitte mooy ñu defar ndaw ñi ba ndaw ñi bëgg Sëriñ Tuba di ko liggéeyal loolu mooy li nga xam ne mooy xew ci bitim réew te boo demoon ca fee ñu dëkk dafa mel ne sax lu mel ne lii dafay tumuranke ndax benn saal boo xam ne dañ fay dag li mel ne suba fanaane ko di fa jàngal xuraan ak di fa jàngi xasida ak di fa waxtaane baaxu Sëriñ Tuubaa jàpp naa ne Sénégal boo fa demee mën a fa am lu mel nii ndax nañ koy defee ak fii dafay wuute ndax lu néew lañ koy Sëriñ Tuubaa la waxoon ne ci seen réew laa ko fekk defee loolu moo waral barab yu mel nii ñu fiy dund dëgg dëgg lislaam di ko wan ñi nga xam ne ñoom loolu du seen jubluwaay du seen bëgg-bëgg waaye ñu leen ko wana ba ñu bari ñu ngi koy xemeem di dugg ci biir di xam kan mooy Serigne Touba ba ñi nga xam ne ñi ngi wax naan l'islam maanaam terrorisme lañ lañ lañ doon ba waaye bu ñu gisee njabootu Serigne Touba dañ naan ñi bokk ci ñoom. ba lépp luñ soxla ci saal wala lépp luñ soxla ci wàllu diine dañ leen koy jox bàyyi leen ko te ñi ci des kenn du leen ko bàyyi lan moo waral loola mooy njàngalam Sëriñ Tuubaa mu sell moo xamante ne bii dara yonante bi sallallahu alayhi wasallam génn ko indi lu bees indi wu li fi boppam waaye njàngalam yonante bi la indi moo xam ne ñu bari dañ koo réeré woon xamuñu ko ni mu rafet mu indi ko yeesal ko ba jëmbat ko ci njabootam njabootam na ñoo ñëw ci bitim réew di dund li nga xam ne mooy mu jaddit bi nga xam ne moo nekkoon te moom nekkatu fi kon loolee dafa nekk war a kon ak njabootam ak ñi mu defaroon ñoom ñoo ñëw ci bitim réew di wéyal li xam ne mooy liggéey bi sëñ Tuubaa waaye jaare ko ci ndaw ñi ak li nga xam ne mooy jigéen ñi ak ñi xam ne mooy mag ñi fi nekk kon loolu mooy li xam ne mooy waral bi yi ñu koy def te dëgg-dëgg lay yi la ja mooy loolu ndax dëgg la maam Cheikh Anta li ma am am na ko noppi dara du ci wàññi ko day yokk waaye du wàññi ko waaye lan moo tax ñëw bitim réew di koy def mooy dañuy jàngale dañuy wan ne njàngalem sëñ Tuubaa yëmul ci moom waaye dafa dem ak ñi nga xam ne ñoom defar kon ak njabootam nga xam ne xame woo rakku Cheikhul Khadim xamoo taalibe ba waaye ki bëgg Sëñ Tuubaa di ko liggéey rek loolu la Sëñ Tuubaa moom la xam te ñoom kooku la nekkoon kon daal moo loolu mooy li nga xam ne moom la ñu gis fii ci bés fii nga xam ne weesu lu dul rek njàngalam yi Cheikhul Khadim te njàngalam Cheikhul Khadim mooy njàngalam Yonent sa sallallahu alayhi wa sallam muy tasaare diine andi ko naka Yonent bi andi woon mooy daray po du ci ànd daray bakkan du ci ànd waaye jaamu yàlla goo xam ne defuñu ko ngir ragal sawara defuñu ko ngir bëgg àjjana waaye dañ koy def ngir bëgg sunub sëriñ lim doon yeesal ñu koy ànd ci loolu rek mooy sunu taxawaay ci fii nga xam ne mooy bitim réew. jërëjëf Oustaz lii rek lañ la doon doye ndax xam-xam bi rafet na tayit sell na tayit set na wecc wax dëgg yàlla eh, ñu ngi lay ñaanal rek bu xam-xam bi gën a yokk fan wi gën a gudd eh, ba nga xam ne li ngay man ak li ngay def ak li ngay jàngale ci daara ji ñëpp dañ ci teg soobee yàlla léegi daan ko gën di kool eh, ñu ñëw sëñ Aliou sëñ Aliou yow mi nga xam ne Bok nga ci nga xamne ne yaay jëwrini màggal gi wala jëwrini keur gi jita magal gi bok ci jita magal gi waye bok ci comité d'organisation manana ci comité bu ne bok nga ca kon bu ñëw ba tay fi magal gi fi ñu magalé yaakaar naa bu ngeen gisee mi ñun ñëwé ak organisation bi dañ ko défé day daal di wuyu turu borom rek ci dërëm ak gërëm ngërëm la kon yaakaar naa am ngeen ko yéne tax magal gi organisation bi rafetna na dërëm ba def ngeen ko ci magal gi ndax tabaar bernde ji lepp doyna ba ñepp li ngi kon seen xool war naa sedd tey ci or ci màggal bi. jërëjëf euh, sëñ Modou. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki julli yi mbokki taalib yi fu waay man di nekk ci àdduna bi tey topp seen rajo Touba Zingonia ci YouTube walla euh, Facebook wala ci rajo bi sax ñoo ngi lay nuyu. sëñ Ba sëñ Modou xam naa tey suñu xool sedd na seddaay woy wow mënuñoo wax dëgg yàlla tey wax ndax. wolof Njaay day wax nii xool mënta def yaari barce te wax dëgg yàlla woote ñu wuyu la daa doy sëkk maanaam ak mbégte waaye rawatina nag nit ñi wuy si kenn ku ci nekk ña yor seen xam-xam yulli seen xam-xam ña yor seenu doole def ci seen doole ba jeex tàkk ña yor seenum koom man la ca fuuf wet gu nekk nag kenn ku ne maanaam def ca loo xam ne bi yow mi nga xam ne dañuy lay tudd di tudd bis ba leer na la ni ñii wax dëgg yàlla tiim nañ la ci lool loolu nag fees na sunu xol fees saay bopp yaakaar naa ni wax tey duñu ko man waaye lépp rek dañ koy delloo ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa la yàlla may may yoo xam ne bii maanaam maanaam maanaam benn mbindaafan bi histoire nettali ci kaw suuf ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko yàlla defal maanaam daa mel ni yàlla defal ko keneen ndax sëñ Modou boo xoolee bis bi la jiit bis ba ba léegi maanaam daanaka man rawatin waa audiovisuel waa rajo Touba Zingonia maanaam plateau yi ñu fi def li nga xam ne bi jël si nañ ko tey ji ci ba ba léegi muy mboolem lu ñu am lépp mu ngi nii ñu exposé ko fii ci barab bi ngir rek jàllale bis bi te boole gi yëkkati seen alal di ci def ni ma ko waxoon léegi kon da nga yow loolu li nga yëg mooy te kenn lañ ci du fay benn dërëm wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujzaa ilaa ibtiqaa wajhi rabbil a'laa ngërëmul yàlla rek lañ ci sàkk amul kenn ku ci koo xam ne bi dinañ jox dërëm waaye liggéeyam sëriñ Tuubaa la doo ca xool ku la ca xas doo ca xool ku la ca mere waaye na sëñ Tuubaa am ah, nañ ko defee ni ko sëñ Tuubaa bëggee rek te damay wax ni màggal yi am fii ci réew mi du lu ñu damoo waaye yow ci subaak tey ba nga ñëwee léegi ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yi nga xam ne façon woon nañ ko jàng mi ngi nii bi ñu julee takkusaan ba noppi lañ ko jàng ba mu jeex tàkk ñaar fukki kaamil ak juróom ci barab bi ci tey tey tey te le jiiti maanaam euh, euh, màggal gi ko ma sama calcul kéet yaangi ni waye waaye néewaa ñu magal lu jiitu magal gi ak magal gi yëpp te daanaka ni do jang ñaar téméré caméra gi tollu waye jëmmé bis mom moom bu ñu xëyee ba bala ñoo def dara ak lu man di def dañu jang ñaar fu caméra juroom juróom-ñetti gis nga bi ñu demee ba 1 heure lañu tambali euh, di def manam rajas manam waye tiwul ñu continuer jangum caméra ndax bobu ñaar fu caméra juroom juróom euh kilifa yi nga xayni bitam seen wajur ak seeni maam bis yi ñoo ko doon tax ñoo ko taxaw si de dalal nga fi léegi ki nga xëy ne bii mooy sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Mor Mbacke mi nga xëy ne bii mooy xalifa sëñ Gaawaan ak sëñ Amidou Mbacke mi nga xëy ne maamam la ñu tuddee bis bi tey muy sëñ Amidou mu sëñ euh, Modou Mamoun sëñ Amidou mu sëñ Sidi dégg nga kàddu yi mu wax ñoom ci suba ba léegi ñu ngi toog kenn ko ci raf amut waaw kenn ko ci raf amut jiite liggéey bi de maanaam toog ba ñaar fukki kaamil yi ak juróom lépp ñu jàng ko ak itam dina sonn ci liggéey bi gis nga léegi interview yi nga xam ne bi def nañ ko ñoom kon sëñ Modou ñun mënuñu lu may sant rek lan man tey suñu xol sedd na guy wax dëgg yàlla képp ko sab xol di sedd sab xol sedd na lii mboolem àdduna bi si ngooñe tey bañ fa xëyee bi ñu xëyee ci fajar ab car cinquante personnes moo fa jógee ànd ak ñun léegi nii maanaam soixante-dix personnes ñoo fa bàyyi ko beneen car bi def soixante-dix personnes te li ñëwaat ci oto yi rek mat na cinquante berché yaak gox yi lépp malgré ak bis euh, jamono ji nga xam ni tey dafa nekk jamono yi feet ñu bare bari ñu ngi ci feet yi ñii dem nañ vacances waaye teewul gis nga taalibe yi ñoom ñëpp mobilisé wu ñëw loolu daal mooy bisu Sëñ Tuubaa la ñu woote taalibe yi Sëñ Tuubaa rek lañ gëm waaye la euh, Mor Talla Diagne waxan ca marché Cheikh Abdoul Ahad ba dañu woon aw ca yeelu yàlla te naxoon ñi foo geesu gis fa nit ñi Cheikh Abdoul Ahad nit ñee ko jox seen xol yi taalibe yi Sëñ Tuubaa rek lañ bëgg sëñ moom ak lu la waaye man wax taalibe yi Sëñ yi sëñ Tuubaa lekk lañ bëgg képp ku leen woy woo ci sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa kese tax te ñu xool biir ak biti fekk ci sëñ tubaa loo leen woo rek jaral na leen ko sëñ Modou ma delloo laat la kàddu gi. Euh, ci euh, jàngat bu njëkk bi euh, li ñu gis yi wala li ñu seetlu it mooy xam nañ ne sëriñ Tuubaa daanañ ko tuumaal ak jihaad ba mu tontu woon ne inni ila wajhi laa u ujaahidu kon tuuma jihaad googa mu leen doon ñu ko doon tuumaal ak gëm leen tontu woon. mel na ne maanaam boo ñëwee fi ci réew ci ci ci réew mi maanaam leeru jihaade waaye résultat jihaade feeñ na ndax niñ ko waxee léegi réew mi ñu nekk bokk na ci réew yi dëkk bi nga xam ne moo gënoon a naqare dëkk ci këru àdduna ci Italie ci wàllu racisme ci wàllu kenn mënu fee am liggéey ci wàllu mënuñu fee dëkk ak nit ñaareel ba mooy place bi nga xam ne moom la ñuy defalee màggal bi bokk na ci maanaam place boo xam ne benn la ci discothèque yi nga xam ne moo gënoon a ci wet gi ñu nekk yëpp kon bu sëñ bi demee ba <clears throat> dëkk ba nanguwul woon a gis nit ku ñuul ñu fay jàng alxuraan place ba nga xam ne moo noon discothèque ba gënoon a rëy kenn mosu ñoo xam luy diine ñu dañu fa màggal jàng ba alxuraan jàng ba xalaat bu jafe comme lam ne woon dinaa ñëw ci seen biir fekk na ci seen biir ak lam ne moon ini u jàll u watiilaa ñaar yooyu bu ñu leen boolee kon wàcc si na fekk na ko comme lam doon wax def na ko ca kenn boolewu ci coow sëñ Modou ni gis nga jihaad ci islam kenn du ni jeex na fi mais gis nga sëñ Tuubaa bi mu jihaadee lii ma la wax nii jàng nga histoire ci côté bu ne bu dee français wala araab wala lu mu mën doon mais dafa mel ni méthode bi mu jihaadi moom li mu ci am ci résultat néew na ku jihaat beneen jihaat am ci résultat yi mu am. ah ba mu fi ñëwee fekk na fi Sénégal ay niti diine yoo xam ni bi def nañ jihaad ci arme ñun ñëpp xam nañ ko ak lu jiitu senegal ak maanaam ca sax maanaam bilaadu Ijaas waaye résultat bi Sëñ waa am ci jihaad bi mu jihaadi woon yaakaar naa ni ku ci ma mooy yoon wi nga xam ne bii mooy yoonu jihaad mooy jihaadu nafsi ndax wax nga ko léegi taalibi Sëñ Tuubaa liggéey bi ñu liggéey yàlla fii ci ci kaw ci fii ci réew yi sëñ bi amul leneen loo xamante ni mënoon na leen ko may lu dul maanaam ni Sëñ Tuubaa yoon wi Sëñ Tuubaa xàll yar leen ci yar ci seen i maam ñu nàmp lool ba fu ñu dem loola mu doon loo xam ne ci koy dóom la mu ci doon ci ñoom kenn mën leen a seen la nga xam bi ma na namp nañ loolu moo waral tey mën ngaa te sa loxo ni islam li mu amee ci réewum Europe rawatina Italie jaaree ko ci seen amul kenn kenn ku mas a jihaad jihaad bi mel noonu ndax islam ko mas a dem almuhajirin ñi nga xam ñoo gàddaay immigré immigré yi ñoo ko fa yóbbu waaye sëñ Tuubaa le résultat bi mu am ci réewi Europe yi waaye rawatina ak rawatina Italie wax ko léegi barab yi yëpp toit yi bañ koy tabax lii ay église la yii dañ fay fecce yii dañ fay defe nangam yii dañ fay defe nangam sénégalais képp nga yem gis ñuy woote événement yu mel nii nga xam ne ay junni junni yi doo fa gis benn benn policier benn om de loi defe naa ci subaak léegi gisoo fi kenn kenn kenn amul keneen ku ko mën a organiser kenn kenn te fi jamono ji tollu léegi boo demee ci gaar yi mboolem bërëb public la fa de ay tekk der wóoluwuñu kenn ñu lay bàyyi ngay woote mbooloo yu mel nii ci jamono ju naqar ji nga xam ne tubaab yi wóoluñ kenn seen yoon boo waxee ñu ne Sénégal yi ñooñu moom jàmm rek la ñu def la ñuy def amul duñu am benn problème loolu nit ñi dañ koo miin dañ koo miin di ko dund mais loolu xel mënu koo nungu am na ko doon wax naan sëñ Tuubaa du lu du xel nungu mais dafa bokk ci ay karamaatam wax nga ko noonu ini jihaad ini ujaahid bil ulumi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shahid damay jaxaat ci xam-xam ak ragal yàlla doon jaamu yàlla boo xam ne damay liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mii nag seere na loolu amul lenn lu sëñ Tuubaa mës ta yëkkateeg saatu ma sëñ yor benn arme waaye bi ko noonu yi ñëwee yor sen kënu ya yor seen leen lépp seen jaas ya yor seen lépp lum doon jihaad ñoom catu xalimaam bind na ko fu ne waaye nag daa fekk tàggat boppam rey boppam ci lépp loo xëy ni bii mën na koo gàllankool diggante ak boromam ndax yàlla nag ba léegi mooy yàlla képp koo xëy ni bii yoon moom xàll moom suñu borom ni ku ñëw ku xuus ci maanaam dégg yi ci lay bi xuus ci coono yi boo ñëwee dinaa la yóbbu foo xëy ni mosuma waa yóbbu kenn yoon wi ba léegi ma nga waaye yow ndax di nga am courage su def loolee loolu foofu la wax ji nekk waaye yàlla ma mayoon sëñ Tuubaa lam ko mayoon ba léegi mi waaye nag ndax jom yu defal la sëñ Tuubaa def ba léegi mi kon nag sëñ sëñ bi rek mooy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa li ko yàlla may mayu ko kenn mayu ko kenn tey boo gisee bis yi niñ fi wàccee ci alquraanu karim duñ ko faral di wax alquraanu karim moom lam ni yàlla moo moomale na ma ko kenn wérantewul loolu taalibi sëñ gën a gën a gën a ka ca gën a ka ca gën a néew maanaam ka ca gën a néew loo xamante ni bi fi mu nekk nii moom lay def saa su xëyee lu néew néew néew dina jàng kaamil alquran karim wala isbu quranu karim kon nag loolu day lu am solo loo xamante wax dëgg yàlla loo ko lam ne woon yàlla moo ma leen na ma alquran saa yoo xëyee danga ko gis ñun daal duñu man lu may sant yàlla bu baax a baax sëñ mu di sant itam jullit yàlla yi rawatina taalibi sëñ Tuubaa yi ci bis yi nga xëy ni bii wax dëgg yàlla jàpp rafet jàpp rafet yi ñu ko jafe kon dama lay bàyyi si Pape Moussa Diouf mi nga xëy bis bi lépp moo ko organisé du yam ci loolu waaye màggal gu fi am salle bi ko ci am jot ci ñaar fukki at yi wessu ci mom nga koy jaarale mu doon jeurin jo xagn ne wona winato gep mo len leen mo len leen yalla dogal te muy kër sëñ gaawaan man ak mom mi ño bokku ni siaré mo tok ni lepp loko wara laaj rek ci taxway bi mo wara taxaw ci manam bis bi ñu jollu jeuf seigne ali ñu ngi lay ziar bu baax baax ñu ngi lay ziar jeurin ñu ngi lay nuyu alaykum wa rahmatullah nga bokku ñi nga xamne ne yaa magal gi yaa jiite organisation bi barab bi it ku ne xam na ne cay jamono xëy na yombewul woon nii amee fépp saal nii ndax ku ne xam na ne bi eh, nit ñi bareeguñ woon loolu daana jafe lool ndax neneen lañ la daan xoole ne la lañ la gisee waaye tey buñ demee ba nga xam ne it yëf yi yombel nii duñ def lu dul sant ko sëñ Tuubaa waaye sant ko it fi nga xam ne fi ngeen jëblu mooy kër sëñ Cheikh ant Gaawaan ndax fi nga xam ne foofu ngeen di liggéey kenn ku ne bundam di sëñ Tuubaa kon mu mel ne bu ñëwee ci sëñ Cheikh Anta ak ay jukkoom liñ ko daan waxal moom lañ gis fii te mooy liñ koy woowee mooy borom dërëmam gërëm tamay ni ma koy faral di waxee mooy yaar yoo xam ne bëriwut nu ko nit di boolee te fa kasalu ndax bëriwut maanaam nu nit di amee gën a gàññi am ngërëm ne gàññi ndax lu ci gën a bëri nit ki fu mu amee rek daanaka bu gisul boppam itam dana fàttal la ko mayoon kon sëriñ bi li def ba am lii lépp ba nga xam ne moo ñëw tey bañ màggal si ana lan mooy li ca xam ne moom lañ ci génnee ñun man ko cee génnee man koo jariñoo ngir tey waaye ngir koo jariñoo it ëllëg ngir suñuy doom waaw jërëjëf xanaa di sant yàlla rek di junni si yonente bi di sant Serigne Touba di sant suñu sang ba Siri Gaawaan te xam ne li nga laaj am na solo ndax ñun dañoo amul lul sëñ Gaawaan te it amuñu lul Serigne Touba yàlla def comme ni nga ko laajee ci birab bi ñu nekk ay jamono amoon fi saal boo defee lii jafe na trop waaye yàlla ci mbaaxam gi ak ci baaxuk sëriñ bi xam nañu ñun bi ñu fi ñëwee 1990 amuñu fenn fu ñu dëkk liñ fi njëkk xalaat rek mooy daayira sëriñ Touba nga xam ne daayira bii dox tey muy daayira sëriñ Touba bii dox tey 1990 ba léegi. mu nekk daayira boo xam ne cosaanam lu jafe si daayira la ndax daayira bi ñoo ngi ko sos sa gaaru bi cen saa jamono bi ñu koy sos kenn si ñun amut kër goo dëkk waaye ñun liñ njëkk a xalaat rek nan fi sos kër sëñ daayira sëriñ Tuubaa yàlla def mu ñu bari doon jaaxle nan lañ koy sosee ma ne leen loolu yomb na ndax taalibe sëriñ Tuubaa koo waxtaanal rek di nga xam fan la bokk ñu di ko def ba taxawal fi daayira bi defe naa 90 ak tey mi ngi bëgg a yomb ñu dem muy jafe lool ñuy dajé ay gasson diko laaj yalla ak Serigne Touba dem ba commune ñu ab ab saal dinu wax dañuy jël ci caabi ji diko delo yalla def ñuy def bañ ñi ma ji dal demal demal tegg ko jërul nga di ko andi ñu jël caabi joju di def ba bis ni ko tay ji saa yiñ ko soxla rek duñu dem sax ane bu ñu rek dañuy def demande bi rek ñu rendi wala ñu demande bobu yalla def ci barab bi ñuy santé tay ji andi fi bisu daru salam bi mu nekk bisu boo xam ne am naa si mbégte lool ngir yàlla gimmi sañ sëñ gaawaan ndax yàgg na nekk sama nisër yàgg na nekk sama bëgg-bëgg waaye ren la ko yàlla sëriñ Tuubaa dogal ndax li ma si bari na taalibe yi Daaru Salaam yi nekk fii ñoo xam ne tey ñu ngi si biir saal bi te liggéeyu gaaw sëñ gaawaan bi ak mbooloo mi ni ñuy daje li muy rëy rëy rëy rëy taxawaay bañ ci war a taxaw yàlla dëggalugul ñu taxaw si ñun nag boo gisee ñu jaayanteeg sëñ Gaawaan andi liggéey bi fii mbooloo néew la waaye bëgg rek suñu mbokki taalibe yi nga xam ne yàlla dana féetati si kër borom gaawaan ñu am pasteef walbatiku ñu gisee li xañe dina nekk si ñoom ab soññee moo tax ñu ni léegi màggal gi ñu jël ko andi ko fii màggal gi ko wax dëgg yàlla bi biñ ko commencé ba léegi ay mbégte rek lañ ci am chaque jour ñu gis lu kawee suñ jot ndax dafa mel ni xale yi waxuma la sax taalibey daaru salaam yi waaye waa ka sëñ Tuubaa yi fi nekk yëpp ñoo nu gën a bëgg sax bis bi ndax soo waxee ñu la sëñ gaawaan moom bisam bisum ñëpp la kenn moomu ko ndax sëñ gaawaan ku ne xam na ni cër bi mu cëroon si sëriñ Touba yaakaar naa képp ku si bokk doo ñeetaane kon boobu ba léegi mbooleem fu taalibe bi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne yaa ngi bàyyi si lépp pour lu jagal bis bi mu nekk bis boo xam te wax dëgg yàlla sant naa si yàlla ren jii sax ren yàlla da see def leneen lu gën a tawféexe ndax ñi nga xam ne sax ñoo yàlla da leen see defal ay tawféex yoo xam ne mosuñu koo gis si ñoom ndax dem nañ ba ñu taalal climatiseur yoo xam te mosuñu koo nangoo taal dem nañ ba ubbil ñu place yoo xam ne sax ñun jëluñu ko kon yooyu yëpp muy xam ne liggéey sëñ tubaar rek moo am solo yàlla defal na autorité yi nga xam si ñoo dëkk si dëkk bi muy police ak carabinieri yi daanaka ku fi ñëw léegi lañ fi jóge rek mais dañ naa la boo amee benn jafe-jafe rek wala boo amee laraf lu ndax rek kon loolu liggéey sëñ Tuubaa rek ñi ko mañal kon ñi ngi soññee képp koo xam ne yaa ngi nekk si taalibe bi yalla def sa buntu Serigne Touba di borom gawan ñi ngi lay wo di la soñ ci liggey borom gawan mi te xamni toujours duma jog diko di wax kep ko xamni ni kër gi nga dëkk yëngoo bañ rañé la fatim di nga am gàcce ndax di nga nek ak sa morom dëkk ak mom mu bok ci geen kër rañ ko ba ñepp rañé ko kon nañu xamni ñun talibé Serigne Touba lañ ay talibé lañ fas nek nekk suñ buntu ci borom gaawaan moy borom kon liggey borom gawan bi, ma ngi ci wo ñepp di ci wo gor di ci wo jigen ah di sant nak wax deug yalla sama mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom laa nekkal fii Touba Veneto muy fédération Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne moo nekk fii wax dëgg yàlla boobaak léegi même groupe WhatsApp bi nga xam ne daayira bi am na ko sax mën naa ne bët bu set ñu jàng ñaari kaamil wala ñetti kaamil kaamil boo dugal bala ngay pare ñun la kaamir bi jeex na ba liñ ci jàng si kaamil ak xasaayit lépp def ko addi sañ gaawaan wax dëgg yàlla man dafa kawe sama njort kon lépp luñ fi def yàlla nañ ci daje ak jëmi borom gaawaan ñoo ngi naan képp ku fi teew rek yàlla na la yàlla sëriñ Tuubaa yombalal dërëm ak i ngërëm ci barke Cheikh Sidi Mokhtar képp ku fi andi jàngoro wala nga andi fi lu man di doon rek yàlla na ko yàlla yonte bi ak jëmi sëñ gaawaan saafara kon xam naa ni ko waxtu wi dafa xat maa ngi delloo kàddu gi xam naa ba ci kanam bu amee li leen luñ ci war a sànni rek dinañ ko sànni waaye nag du ma jeexal mukk tim ci sa santuma suñu mbokki soxna yi wax dëgg yàlla sa avant première bi ba tey jii rek man dama leen jox rek 100 pour cent ndax wax dëgg yàlla xiiwal yi am na solo xiiwal yi jàpp ni na ñëpp nee nañ tubaarakàlla kon yéen itam dañu leen di booleeg sëñ gaawaan lépp lu ngeen bëgg rek yal nañu ko yàlla sëñ gaawaan defal kon ñoo ngi yemale fi suñu kàddu ba ci kanam di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. jërëjëf di la sant yow itam di la gërëm di sant it eh, ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñëpp jot a ànd ak ñun waxtaan ngeen ko seen a muy màggal gi nga xam ne moom la ñuy def tey fii ci tubaab Touba saa ci eh, région bu Veneto muy màggal goo xam ne maanaam eh, liñ ci mën a fàttaliku bari na ndax région bi mbokk day région boo xam ne naka jekk dafa bokk ci région yi gën a jafe gën a metti gën a diis gën a yit région yi nga xam ne moo gënoon a naqare dëkk ci wàllu nit ku ñuul waa yàlla ci la sénégalais mu bokk ci région yi nga xam ne ni ngeen ko xamee place bi ñu koy defee muy doon ab discothèque boo xam ne mu bokk na ci discothèque yu gënoon a doy ci région bi nga xam ne léegi maam dañ koo tëj ubbi ko ñu ci def màggalu di fi jàngal jàng alxuraan dafi jàng xasaayit mu nekk yéen maanaam région bi nga xam ne fi ñuy jàngee ci waa kër sëñ Tuubaa daayira sëñ Tuubaa yëpp ñoo fi teeg tey ñuy liggéey fii di sant ñi nga xam ne ñoo jàpp ci organisation bi ñëpp ñi nga xam ne ñooy liggéey ci liggéey bi ñi nga xam ne mooy daayira yi ñi nga xam ne mooy fédération yi waaye suñu bokk jigéen ñi nga xam ne ñoom it xéewal gi macha allah dara dakul dakk nañ ko lépp ñoom it ñi ngi leen di sant di leen garam di sant ñi nga xam ne ñoo jàpp organisation bi incha allah kon ñu yemale fii waxtaan ba beneen yoon ba ci kanam tool ba njulli timis ba noppi incha la yéen mbokk yi nga xamante ne yéen ñuy bàyyi xel ci suba ba léegi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen baaluwaat ak te di leen baal àq ñoo ngi gërëm tamit ah, suñu jëwriñ bi nga xamante ni moo nekkoon ci plateau bi booba léegi kon dañuy continuer ak yéen ah, ci soxna Fatou Mbengue Euh, soxna Fatou Mbengue comme niñ ko waxee woon sànq rek euh, taxawaayu jigéen ñi ci màggal gi moom nañoo bëggoon euh, nga gën cee soññaat suñu mbokk jigéen ñi ñi nga xamante ni teewuñu ren te fas yéene teew déwén naka lan nga leen di soññee. jërëjëf maa ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di la ziar. tey jaajëfal waa rajo Touba Touba Zingoña bi maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay tey ñaan ci yàlla sunu borom bi mu may ñu teewe ko ay déwéni déwén ndax yaakaar naa ne li nga wax euh, lu lu yërëm lu daw yaram la ndax lu tol ne bisub maam Cheikh Anta borom gaawaan borom dërëm ak ngërëm dafa yor ay dërëm boole ko ngërëmu Serigne Touba kon yaakaar naa ne jigéen joo xam ne sii rek yaa ngi ci réew mii te tey bu la fekkon senegal da ngay dag pass daw ay kilomètres yu bari téwé bis ba bo nekkee fi ci réew mi surtout nak muy weer wi ñuko def muy weer wo xamné day weeru weeru férié ñu bari dañu jël ah yaakar na né dañ né ku demul tool yi serigne baat da nga dem diberi firawna motax na len bis bi dafay bis bo xamné bis bu jara bis bu jara bis bu jara fonk la ndax mam Cheikh antakat ku gis fam jaar ak serigne Touba. ak li sëñ wax ci moom bisam ñàkk caa teew ah, loolu defe naa ne day eh, ñàkk caa teew ah na waar de wóorul daal wóorul ndaxte boo ca teewul it am na barab yooy teew yoo xam ne barab ya teew barabu tey bi da koo gën am da koo gën a ma delluwaat di leen soññaat nag yéen jigéen ñi nga xam ne si yéen a ngi may dégg te bu ngeen jógee ñun ñëpp dañ naan Serigne Touba lañu yaakaar te Serigne Touba de ku xool ne maam Cheikh Anta bi liggéeyal na ko liggéey boo xam ne si bu ñu woowee bu ñu ko wootee yow da ngaa war a jóg ngir jëmmi yàlla ak jëmmi yonent bi ak jëmmi Serigne Touba teew ci barab delluwaat nag bu baax a baax di delluwaat di leen di leen nag bu baax ak tamit bu ñu bu ci jataay yi nuy moytandiku yenn waxtaan yi ndaxte lu toll ne maam Cheikh Anta soo fa toogee war naa am waxtaan yoo xam ne war nga koo bañ di génn ci sa gémmiñ di ko wax ndax jëmmi borom bis bi daal danaa la ko ci waxal ndax jëmmi borom waaw ba tey dañuy ñëwaat ak yow daan Fatou Mbengue ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi te nekk ci liggéey bi lan nga ñuy gën a waat ndax gis naa ne xale yi moom fi mu toll nii pasteefu nañ lool foo gëstu rek yaa ngi leen di seen ci liggéey Serigne Touba bi ba tax na ñu lay ñaan rek nga dolli ñoo baaxewaat euh, bu baax a baax gën ñoo sonn ñu gën a mën a am pasteef. waa jërëjëf li ma leen di dàggewaat rek mooy doomi mbër day jàng bëre suñ ko waxee du question làmb ja di bàkk bu jàng bëre dañoo bëgg ngeen xool ci seen waajur fañ teg seeni tànk ndax am na waajur yoo xam ne kat du ma ne baaxuñu waaye fañu jëmale fa jëmale fañ jëm seeni doom duñ bëgguñu faa jëm moo tax yéen ñi nga xam ne si da di ànd ñun guddi ak bëccëg ñu xool ñuy liggéey ñuy bay ci waaru Sëriñ Tuubaa di liggéey ci liggéeyu Soxna Jaara dama leen di dàggiwaat ngeen gën a góorgóorlu rek te xam ne réew mi moom lii rek moo fi nekk da nekk ci lu baax wala nga nekk ci lu bon kon nag yéen dañ leen di bu baax a baax yéen ngeen xam ne da ngeen a dëgmal bu baax ndax yoon wi ngeen jaar de bu leen ko wàcc fii ngeen teg seen tànk rek moom la maa ngi di maa daal bu baax a baax soxna màggat lu ngeen góorgóorlu woon ngeen le ko te lii ngeen di liggéey it bu leen ci gis seen bopp ndax bis bu ngeen ci gisee seen bopp rek yàq seen liggéey te kuy liggéey doo ca xool sa bopp da ngay xool ngir jëmmi Serigne Touba ak

Absalom.